jey ña mbokki la ñu la jëy seen borom jëy production mbokk ndaanaan bi nga xamante ne bu wootee amateur kontaan bu wootee képp koo xamante yaa ngi bëggee làmb kontaan xam ngeen lu ko waral sama ndi yaay Abdou Lakhat Ndiaye yi muy def ci biir la kenn mës gis tey Abdou bis la boo xamante làmb dootu ko fàtte ndax dañoo jël xale yi nga xamante làmb da yaakaar xam ngeen ñaabu ndaw mooy yaakaar yi géejawaay mbokk xam ngeen sénégalaise ciy loolu ciy jéen ma papa Jacques Diène suma xel dem na ci yow ak ñi nga xamante ni jiit nañu mbokk manager yi ñoom la jéen seen di sargal ci bis bi nga xamante ne nii ci la xale ñi gën a xarañ ci làmb di daje ginnaaw Bour ak ñaabu ndaw mbokk yi xam ngeen dina ci daje mbokk ak armée bu ngéwél appliqué moo fay daje ak fils de doomu looro dina ci laale mbokk moom ak Boy Paul Petit moom ak Douglas numéro 2 lay doon Zita combat bu doy waar boo xamante ni képp kuy amateur yaa ngi koy xaar trois grands combats ci benn bis nga ni koo ko sargalee manager yi mbokk yi xam ngeen bis bi lu ci gën a neex dañ cee sargal suñu nawle dañ cee sargal koo xamante ne dañ koo yàgg a sargal ci làmb sama xarit Ismaïla Mbaye naan nawle daa fort ba tax na ki nga xamante ne nii moom mooy Fadal bu Dakar Buzz Fadal ndaanaan bi fu mu dox ñu xam ne kii mooy ndaanaan bi nekk ci Dakar Buzz mbokk yi moom la ñuy sargal Fadal boo yegsee xam ne askanu ngéwél ñoo la bëgg ci sama waa ji le 22 du yomb jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew mbokk yi tey ñoo ngi fii arène nationale dimanche 22 octobre journée bi nga xam ne moom la réew mi doon xaar ak bitim réew xalil waaye nag tey Daaru Salaam sob Baye Sall bu Siteu tey moo génn fii ci sañse bi xalil macha allah mu koy jaajëfalaat bu baax a baax a baax a baax di nuyu suma gaa yëpp waa Colobane Baye Sall maa ngi ñëw incha allah waaye Fadilou Fall Galso 94 doomu nday mbay shop borom Kër Massar maa ngi lay béggee bu baax a baax a baax taale oftim borom veria borom roq montre fële ca Sandaga bëgg naa la mbokk yi njaabu ndaw moo dugg si noonu xalil gis nga ko champion bi doomu géejawaay bi moo ñëw nii ànd ak waa géejawaay gis nga ko mi ngi noonu ànd ak dundu ànd ak Serigne Mor ànd ak ay xaritam ñu ngi noonu xale bi gis ngeen ko bi mujj moom ak Tafa Gueye Taraba xaala woon jaakaraa baa ngi noonu taxaw moom ñaabu ndaw. gis nga ko maam ngi noonu ñaari boppi tan la rango yor béjjën béjjënu kooba sol benn leket ci bopp bi moom ñaabu ndaw seex benn fas jël benn perkaal def ko ca bopp ba moom ñaabu ndaw yor ñi ah Serigne Mor a ngoog <laughs> dégg nga Serigne Mor nee na ndel bi day fay koo koy taalibe seex borom wax tuuti job lu bari mi ngi noonu moom Serigne Mor. ñaa bu ndaw ngi noonu di yëngal bopp bi doomu géejawaay bi doomu gunaas bi moo ngi noonu moom ñaa bu ndaw jaakara bi taalibe maam Thierno Mbacke borom daaru bi laa ilaaha illallaah mbëri bu ñëwee ci bis xalil doo leen xàmmee gis nga ko laa ilaaha illallaah chaque jour ma ne la champion la bàyyi ko xel 5 mars 2017 la dugg ci làmb moo bëre woon ak booy jonn bëreeg bébé Tafatine xale bii bëreeg li bu doon bu pasi xale bii. xale bi bëreeg rëm bëreeg armée bu ngéwél bëreeg tafaagee tarabaxaa ndaanaan baa ngi noonu waaye ki muy dajee super ndaanaan la buur sin waram wax tuuti joob lu bari sama caméraman bi daa tardé nag moo tax jëluma buur sin ci caméra bi ndax buur sin ndaanaan la doomu fudaay la mbokkam yaayam seex anta la mbokkam yaayam kéwél doomu bada jon bi moo bëre woon ak mamadi seeraas moo bëre woon ak soq moo bëre woon ak buloo mamaya fils de balla ngeer bu sab saalum saalum Eumeu Sène maa Mama Lamine ndeysaan buur seen champion la boo dee lim da ngay juum victoire yaa bëri ndeysaan ñaa bu ndaw a ngi nii taxaw doomu géejawaay bi xalil mu ànd ñoom Alioune Seye Alioune Seye numéro 2 ñëwul Baye Fall ba la tax ñëwul na ñëpp xam nañ ko combat la am day waajal waaye gis naa fi kebe la jantal maara gis naa ko fi ñaa bu ndaw a ngi nii ànd ak kot su papam ànd ak andaw ànd ak caat bu waalo perkal bu verte perkal bu verte bu la neexee nga bàyyi ñu dem moytu sa ginnaaw ñaawa ngi noonu di dem doomu géejawaay baa ngi noonu di dem perkal bu verte da lañ ko yëkkatil mu tiim ca perkal nag am na tegtal bu muy joxe ci làmb ndeysaan déggal sama waa ji nee na ma combat bu neex lay doon te gaaw caat bu waaloo ngi noonu andaw ñi ngi noonu di ko sotti bagage moom ñaabu ndaw ko suróon a ngi noonu bëgg xale yi taalibe seex ndeysaan kenn du moom ah laa ilaha illallah bu ma ko waxee rek dëgg bu ma ko waxee rek dëgg la. yii lamb de. tey jii barke Serigne ngeen. non boo gisee xale bi nga xam ne il est déterminé. ah waaj na de. barke Serigne lamb. laa ilaha illallah la waatal. su may dem. su may tëdd sama baay moom baay ak sëñ Babacar sëñ Babacar rek laay topp barke sëñ Babacar taalibe Cheikh la taalibe Cheikh la moom ñaa ngi noonu ñu kokoy ko mi ngi noonu ànd ak Gunaas ànd ak waa Géejawaay ànd ak jaakaraay ngi noonu taalibe Cheikh ngi noonu caat bu waalo laa ilaaha illallaah doomu gunaas baa ngi noonu gis nga caat nee naa ko yi ngay sol boo ko bawul doo am combat de aca rek gis nga ko noonu laa ilaaha illallaah perkal bu doon bu weex ku jekkul moo ko daa yëkkati ci kaw di lijjanti bu vert bi na xaw ma lu muy tekki waaye blanc bi moom xam naa ne tojtal la moom la daa doon ñaawa ngi noonu ndeysaan nee na ko arriéral tuuti day lamb foo gis ñaabu ndaw gis ko fa nee na tey la tey a ndaw laa ilaaha illallaah ñaawa ngi noonu cey doomu géeje waay bi Bour moom dugg na ba placé wu ñaabu ndaw a nga ca xar fa xuufa ya la dugg ci lamb boobaak léegi neuf combats la fi def huit victoire benn défaite xalil mi ngi noonu xale bi dugg si na Bour Sine tamit dugg si na Tmax dugg seegul armée bu ngéwél tamit dugg si na laay laay la laa xoola supporter yi jóg nañ armée ngi ne gis nga ko armée koy yëngal borom jam ñaajo daf daan maam ñaawa ngi ni mooy mooy menace bi laay laay la laa jaakara baa ngi nii xalil doon baa ngi noonu Niang bu Ndaw. jaakara baa ngi nii taxaw. ànd ak détermination. laa ilaaha illallaah. leket bi. nee na ko forol. xale baa ngi nii doomu géejewaay bi. nee na moom Modou waaj naa de damay lamb de. buur sin ma dem seeti ko. mu ne ma ci pexe la nekk de lum foog lum foogul lépp xam naa ko sey làmb ji ndeysaan ay bii combat mënta yomb ñaa bu ndaw ngi noonu mi ngi noonu teg bagage ñaa bu ndaw ngi noonu xalil mi ngi ci bagage yi ndeysaan la ilaha illallah xale baa ngi noonu ba tey dugg seegun moom ñaa mi ngi noonu taxaw gaa yi jël bagage yi du yóbbu ndànk-ndànk moom doomu gunaas bi xale yaa ko woyal ku bañ mu daan laa bul moom kii mooy ñaa bu ndaw Galzo 94 ana nga foo féete kebe ngi noonu xalil le grand marabout borom Tiwaawoon mi ngi noonu sol numéro 10 bi xalil ki sol numéro 10 bi mooy kebe borom Tiwaawoon le grand marabout mi ngi noonu daanaan la moom kebe ceet ji làmb laa ilaaha illallaah Galso 94 maa ngi lay siyaare suma xarit bi nit ku baax suma waa ji kenn du yow ndeysaan def live borom bësal jëm maa ngi lay béggee def ci loo nekk borom bismillah macha allah suñ baara brésil bu ndaw a ngi nii Ibrahima Kanté bay jili Tarkinda bay jili Kolobaan Sañse ñooñu ay supporters yi buur siin lañ bay jili waxat na ma ne ma cinquante mille laay teg waaye gisuma ku ma tegal <laughs> seet cey bis bi waaw waaw kon mbokk ci kanam tu mbokki Sénégal ndaanaan bi saa yu wootee ngeen xam ne ñëwati na kookal la ñu ne Dieye Sène borom Dieye production mbokk ndaanaan bi nga xamante ne ni bu wootee amateur kontaan bu wootee képp koo xamante yaa ngi bëggee làmb kontaan xam ngeen lu ko waral sama ndi yaay Abdou Lahad Ndiaye combinaison yi muy def ci biir la kenn mës gis ci Abdou Lahad bis la boo xamante ne làmb dootu ko fàtte ndax dañoo jël xale yi nga xamante ne làmb da a yaakaar xam ngeen ñaamu ndaw des managers de la lutte loolu ciy jéen ma papa Jacques Diène suma xel dem na ci yow ak ñi nga xamante ni nañu mbokk yi yi ñoom la jéen di sargal ci bis bi nga xamante nii ci la xarañ ñi gën a xarañ ci làmb di daje ginnaaw Bour Sine ak ñaabu ndaw mbokk yi max xam ngeen ne ci daje mbokk yi ak armée bu ngéwél appliqué moo fay daje ak fils de doomu looro dina ci laale mbokk moom ak boy Paul Petit moom ak Douglas numéro 2 lay doon dinañ ci bëre combat bu doy waar boo xamante ni képp kuy amateur yaa ngi koy xaar trois grands combats ci benn bis nga ne koo ko sargalee manager yi mbokk yi xam ngeen bis bi lu ci gën a neex dañ cee sargal suñu nawle dañ cee sargal koo xamante ne dañ koo yàgg a sargal ci làmb sama xarit Ismaïla Mbaye naan nawle daa fort ba tax na ki nga xamante ne nii moom mooy Fadal bu Dakar Buzz Fadal ndaanaan bi fu mu dox ñu xam ne kii mooy ndaanaan bi nekk ci Dakar Buzz mbokk yi moom la ñuy sargal Fadal boo yegsee xam ne askanu ngéwél ñoo la bëgg ci sama waa ji le 22 du yomb